dafa waxoon suñu borom ne ko waaw lii baytan askunu dégg nga de mu nekk yow yàlla daal damaa bëgg nga la euh, euh, seetalal ma wala yàlla moo ko waxoon daawud moo ne yow daawud seetalal ma néeg bi nga xam ne ci laay dëkk man yàlla mu ne ko waaw yow yàlla fan nga xaj ba di fa dëkk mu ne ko xajuma ci suuf xajuma ci asamaan waaye xaj naa ci sama xolu jaam bu gëm kon nag xol bi lu ci nekk ci iñaan rëy ngisal soxor siis yu bon yu suufe yooyu yëpp da nga kaa war a mën a génne ndax yàlla am fa place fii ak yooyu ña nga fa nag suñu borom amu fa soxla de mooy tax leer yi du mën a ñëw waaw yëpp jafe la yëpp jafe la ci wàllu yàlla loolu la wa tahir baytiya li taifin taifin mooy leer yi si war a rossi wal qaimin kon bu fekkee si zahir la li taifin ñeel ñi nga xam ne ñooy wër kaaba gi kon da nga kaa waaye fii ñu nekk ci jàkka ji itam noonu la war a demee ndax ñi fi dugg si di julli si ah ba tabarakallahu benn sobe sobe du fi ne wa rukaa ak ñi nga xam ne dañuy rukon su jëriñee way sujjóot lépp da nga kaa war a raxa dindi ba mu set ngir ñi nga xam ne ñoo jullikat yi daal ci gàttal ba mu waxee lii ba pare nag mu ne ko taxawal ca kaw montagne ma di abi qubays nga jàkkaarloog nit ñi ne leen héey sama borom kat banaa baytan mm. waaw jaba aleykum alxajja ilayhi kon nag fa ajibu rabbakum mm. ba mu taxawee ca kaw montagne ma jublu penku mm. jublu sow ndeyjoor càmmoñ ne héey yàlla tabaxal na leen ab néeg kon war na ci yéen ngeen aj ko kon ay ca bismillah ba mu waxee li képp koo xam ne wuy woon nga ba nga nekkee ci lar arwaax nee nga woon labbayka wa saadayka daa aji ji gisoo fi nit yor lu ne gàññi gàññaar la te mënul dem aéroport ngir aji bokkul ca woote ba gis ku yorul dara nga xam ne añam sax doyul mu dem wuyu kon nag yooyu woote bi yàlla la waaw gis nga ko ba tey ma wa azin wooteel fi ndaasi ci nit ñi bil xaji ci ñuy aj si soo wootee yow jotlil kàddu gi rek la gis ci loxol ma sama loxo la nekk man yàlla ya tuuka daañu la dikkal ñoom délégation yeeg mbooloo yi rijaalan mbir moom ñuy way liiru mooy doxe tànki neen soo wootee daañ doxe tànki neen ñëw ba fa ngay woote pour seet si li woote lan la pour ñu wuyu ca loola nga leen di woo dégg nga ko bu baax a baax wa war ba tey ala ci bépp gileem boo xam ne bu woos la booba nag ay gileem a fi nekkoon waaye léegi nag oto yi am nañu avion yi am nañu bato yi am nañu daañu war rek alaa kulli daamirin ci bépp waruwaay moo xam avion la wala oto wala bato lu mën di doon su ko defee yatiina daañu la dikkal min kulli fajjin bàyyi koo ci bépp mbedd min kulli fajjin bàyyi koo ci bépp réew amiqin bay aji sori ji màkka xoola tey nit ñi àdduna bi fu ne la ñuy bàyyi koo dem màkka mm-hmm. na ngoog mm-hmm. li yashhadu mm-hmm. pour nañu fekke ñoom nit ñay ñëw màkka manaafi ay njariñ lahum ñeel mooy mën nañ faa commerce jënd ka jaayante te daa daañu fa am njariñal àllaaxira bu fekkee def nañu seen farata nañu ko war a defee kon dañuy lare ci yoon wi commerce ba pare boole caag a màkka dégg nga de kon nag bàyyil xel na commencé naa dugg ci aj ji wa yaskuru nañu tudd itam ismallahi tur yàlla mooy jamono bu ñu nekkee ci aj ji nañuy tudd tur yàlla jamono boo xamee ne ñi ngi préparé seen hadaya yi ak seen dahaaya yi bu ñu leen di rendi nañ ko bàyyi xel fi ayyaami maalumaat ñu def ko nag ci fan yu ñu xam moom aj ga ak yéegi tegu di fukki fani tabaski xam ne ci la bisu arafa nekk ak bisu loj baag yëpp ci nekk alaamaa ci nga xam ne razaqahum wërsëgal na leen ko moom yàlla min bahimatil an'am bàyyi koo ci juru kër yi mooy gileem yeeg xar yeeg bëy yañ fa war a loj def ko ay hadiyu sunu borom nee na maa leen defal lii dégg nga bu baax a baax su ko defee su ngeen ka ba pare am ngeen droit mos ca la jees ngeen saraxe ko hmm? waaw am ngeen droit mos la jees ngeen saraxe ko fa kulu lekk leen minha ca la ngeen rendi lekk ga nag amar ji amari eh, ibaaxa dong la soo ne xen nga bañ caa lekk dañ ko sopp rek waatimu ngeen lele saraxa ca al bais aji wañisu alfaqira kay aji tar jig ñàkk nit koo xam ne ñàkk na lool ndóol lool ba fa daya ndóol kooku moom na ngeen ko jox ci yëf yi ba mu gis ci boppam su mali yàq du topp ngeen dindi dañal tafassahum seeni sugg-sugg mooy seen tilim-tilim yi nekk ci seen kawar yi poqataan yeeg sikkim yeeg yëpp ak naq beeg yëpp xeeti kawar yeeg tilim-tilim yi daal ngeen dindi ko su ngeen nekkee ci aj wal yuufu na ngeen matal itam nañu matal nuzurahum seeni nisër yi nga xam ne nisëroon nañ ko moo xam tabaski la wala hadiyu tabaarakallahu nañu ko niser te niser nag du dara mooy loo xam ne warula woon nga def ko mu nekk farata ci yow mm-hmm. da nga koy waral wala yatawafu nanu wër mm-hmm. wërug ifaada gi mm-hmm. comme ñeenti wër ñetti wër yi ni nga ko xamee xudum geeg ifaada geeg wadaa bi yëpp na am bil bayti ca kaaba ga te mooy néeg ba al atiq bu cosaanu bu yàgg ba nga xam ne ñëpp ci kaw suuf nañ ko fekk zalika lii de mooy mbir mi ñii rek laa ko waxee de sunu borom nag nee na waman yaazim képp koo xam ne màggal na xurmaatillaahi kaaraange yàlla yi mooy yàlla xormaal la ñu ko moo xam nit yàlla yi la yenant ti jàkka yi ak place yooyu ñu jox orma yooyu yëpp day dugg ci xurmaatillah dégg ko baax a baax fa huwa kooku def loolu de màggal googu xayrun lahu moo gën ca moom inde rabbihi fa borom ëllëg yowmal qiyaama yàlla dana ko ci fay ndax nit yàlla bi ngay màggal mu wër ne nit yàlla ah yàlla la cay fay ndax yàlla nga màggal mm-hmm. ndax yàlla moo def la ca ba nga koy màggal jubloo ju màggal ko waaye yàlla nga màggal mm-hmm. yénant ba ngay def topp itam mm-hmm. noonu la demee jàkka ja loo fa gis ci tilim tilim takk-takk salte salte lu dul noonu nga dindi ko noonu rek la demee sunu borom nee na wa uxillat dagana leef na lakum ñeel leen al anaamu jur yi mooy ba yeeg xar yi gannaaw ba ngeen karendee ba pare dagan na ngeen jëfandikoo ci nag lekk ci bu baax comme tabaski yeeg yooyu dagan na ngeen lekk ci bu baax a baax comme ni nga ko dara nekk ci loolu baax na ah illa ma lu dul la nga xam ne it laa jàngee foon na ko aleykum ci yéen la ñu jàngoon ci yéen xurimat aleykum mayta booba de moom bokku ci moom lu nekk médi daal ak yu ni mel la ki tegu ci suratu maida xam ngeen ko foofu koy bàyyi leen loolu mu sedd fajitani bu moytu ndiku leen mm. a riji sa sobe mm. mi la aw saani laala moom xërëm yi laa ci namm mm. nee na xërëm yii ngeen di jaamu ay sobe lañu wasan nag suñ ko waxee mooy lépp lu ñuy jaamu tudd yàlla sonam nag buñ ko waxee mooy lu ñu yett différence bi loolu la ci ñoom ñaar dégg nga wax bu wajitani bu moytu ndiku leen xawla zuur waxi mbóosër waxi mbóorante jamono bu ngeen di la bay kaw nee na bàyyi leen bokkaale yàlla ak xeeti mm, wax yu amul njariñ yi yëpp bu ngeen nekkee ci jaamu yàlla teg leen ko fee waaw yëpp teg leen ko fee ba pare xunafaa mbir moom ngeen di way jeng bàyyi diine yu dëng yëpp yëpp yëpp yëpp dégg nga de xayra musrikin te mbir moom nekku leen di bokkaale bi bihi ca jaamu ga ndax man yusri kaay moo leen bokkaal ni mel ku def ni mu wóor de mu ne wa man yusrik képp koo xam ne bokkaale na yàlla ak leneen xamal ne fi mu téye baaxul dégg képp koo xam ne bokkaale na yàlla ak leneen kaay leen ma wax leen mbiram ni mel fa ka annama dafa mel ni waajooy di jaamu yàlla ak leneen xarra rot na mooy daanu na mina sama i bàyyi koo asamaan dafa dem ba ci kaw asamaan xattar bi kub jël la ba mu demee ba nga xam ne war na àgg suuf nga xam ne digganteem ak suuf mu dellu na ci 100 mètres hmm. wala dégg nga maam 200 mètres wala 300 picc hmm. këf ko foofa wala ngelaw këf ko fa hmm. di ko manti mantee ci kaw kooko xam nga ne jël boobu dana métti bala muy agsi sax ndegem du dee nee na kuy bokkaale yàlla nag sa mbir yëpp noonu la mel fa tax tafuhu këf ko a tayru njenaaw aw tax wii wala daaneel ko bii ci mu ar riixu ngelaw mu daaneel ko sànni ko fii makaanin ci barab boo xam ne saxiiq saxiiqin bu sori lool la nga xam ne daal fii moom fañ ko daaneel da daal waa ji suñ koy seeti moom duñ ko fekk ak bakkan kuy bokkaale yàlla noonu la mel zalika mbir mangoog nii rek la nee na waman yaasim képp ku màggal sha'airallah mandargay diine yàlla ji yàlla màggal lu nit yàllaam yi jàkka yi kaaba geeg yu ni demee yàlla fonk daal nga fonk ko fa innaha naka màggal googu min taqwal qulub bokk na ci mandargay ragal yàlla ragal yàllay xol waaw kay ragal yàllay xol ndax xam nañu defalatoo ko sa bopp waaye sunu borom nga kaa defal aywa lakum am ngeen fiihaa ci jur gi manaafi ay njariñ bu leen neexee war bu leen neexee sëf ci seen i bagage mm-hmm. fu leen neex mm-hmm. catang-catang mm-hmm. dëkk dëkk réew ak réew suñu borom nee na maa leen defal lii ilaa jëleen jëm ba ci dig musamma ba di bañ tudd mooy su ngeen dee aji màkka jur yooyu mën ngeen cee war seen bagage def ci war ci sëf ci seen i bagage ba àgg waxtu wa ngeen ko war a rayee fa ngeen ko war a lojee summa maxilluha topp barab ba ñu ko war a rayee daal dem na ilal bayti ba ca jëm ba ca néeg ba alaatiik bay aji cosaanu mooy néeg bu yàgg ba te mooy kaaba ga foofu lañ leen wax lu ngeen di def ngeen defee ji ko foofa ma ngoog loo teg nee na wali kulli ummatin ñeel na bépp xeet ci xeet yi leen fi jiituwoon jaal naa def nañu defal nañu xeet ya bu mu ci doon rek man sakan ab jaamookaay yàlla mooy fa mu war a rendee gàttam fa mu war a rendee hadiyoom ñoom defaloon nañ leen loola ca fañ daan jublu ñu leen defee leen ko fii defee leen ko fii defee leen ko fii mooy loolu la bëgg wax foofa mooy jamono bu ne rek yàlla dana na boole koo xam ne ah tabaarakallahu mooy àggalewaate ci yàlla wala ñuy àggalewaate ci yàlla jamono bu ci ne rek loolu day am liyaskuru pour ngeen tudd ismallahi tur yàlla ngeen tudd yàlla ala ma razaqahum ci la nga xam ne wërsëgal na leen ko moom yàlla min bahimatil an'am bàyyi ko ci juru kër yi maanaam li ñu bëgg sooy rendi gàtt bi loo yàkkamti yàkkamti ak lee mooy meeyey meey wala loo buun buun bismillah allahu akbar yi moom bu ko fàtte moom waaw loolu moom boo ko fàtte de wa ilaahukum yàlla seen daal seen yàlla ilaahun yàlla la waahidun bay benn kon nag fa aslimu lahu wommatul leen ko ci lii mu leen sant defee leen ko ni mu ko bëggee moom sunu borom subhanahu wa taala nee wa bashir bégalal ñi nga xam ne ñooy wayu toroxlu ci seen boroom bégalal ma ñooñu santal ma leen dellal ma leen njukkal ñooñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne ida zukira bu fekkee tuddeef na allahu yàlla sunu borom mooy ñu jàng alquran ci ñoom wa wajilat wala ñu fàttali leen aaya alquran bu leen di waar wajilat jàq lool tiit lool xulubuhum ndax xamuñ ñu daañu mucc wala duñ mucc wa saabiriin taggal ma itam muñkat yi ala ma asaabahum ci li nga xam ne moo leen di dal ci ay xeeti nattu ñooñu itam bakkal ma leen taggal ma leen bu baa a baax a baax a baax a baax dellul ma leen njukkal wal muqimi salaa ak ñi nga xam ne itam dañuy taxawal julli ca waxtu wa ñooñu itam taggal ma leen bu baax a baax bu waxtu yu jotee ñu def yitte ba julli rawatina defee ko ca mbooloo ma dama ne bàkkal ma leen laa wax ko baax a baax nee na ñooñu daal dellul ma leen njukkal bu baax a baax aha aywa wa mimmaa razaqnaahum ak lenn ci luñ leen war wërsëgal itam yunfiquuna dañ koy financé di ko dépassé te yàlla tax wal na ak gileem yi itam def nañ ko lakum ñeel leen ñoom gileem yooyu min shaa'ir la ñu def ko ñu bokk ci màndargay diine yàlla ji ndax lan ray gi ngeen ko war a rey fañ leen ko rey looy lakum ñeel leen mm. fiyaa nekk na ca mm. xayrun yiw mm. ci àdduna ak àllaaxira ndax fii su ngeen ko defee daa ngeen si jëriñu lekk ci ëllëg yàlla fay la kon kay ñàkku faskuru tudd leen su ngeen delloo giléem yi ismallahi tur yàlla alayha fa ngeen di lojee giléem gi sawaaf mbir ma mu yooy benkal benkal nag mooy da ngay taxawal benn tànk ndeyjoor bi ñaari tànk yi ci ginnaaw banque bu càmmuñ bi tànk kanamu càmmoñ bi ngay bank nii mu lemu nii ñett yi taxaw gileem moom niñ koy lojee métti na trop ngay jam ba keroog muy dee xam nga fekkee xar sax mën nga tër def nangam nangam waaye kii moom da ngay jam rek di xëcc rek di noonu lañ koy rey fa idaa wajabat bu daanoo nag junub waa côté mooy soo koy jam di ko jam ba mu tëdd ay ca fakulu lekk leen min haa ca gileem googu ngeen loj bu leen neexee waatiimu lele leen alqaani way xaaraan si yi ñi nga xam ne dañu ñëw di xaaraan si jox leen wal mu'tar ak yalwaankat yi taalibe yi yelwaan gàddu seen pot kër gu ne ñu sarax añ sarax reer wala damay sàkku ndimbal lu mu ci mën di doon dama ne jëlal ci yàpp woo jox leen kon yelwaan yàgg na fi <laughs> gis nga yàlla ba muy tudd ñi ñu war a jox dafa limaale ñi yelwaan kon toog fee naan alxuraan waxukaak yu kenn xamul yooyaay caaxaan la <laughs> Sénégal nag la bund ba moom xeex nañ ko xeex ba sonn yëf yi tële na ko fi jéem a song itam arrière rek arrière rek te bu fekkoon na nga koy songee sax danga ngaa indi solution bu mat sëkk bañ xam ne sax solution bi waaye yow doo indi solution ba pare bëgg fee fàtt nit ñi du dem nag du dem kat du sotti kat waaw kay kazalika naka nii ma leen tàggatalee gileem yeeg yi ca des yëpp sakkarnaaha tàggatal nañ leen lakum ñee leen gileem nga ngeen ci war ak ngeen ciy def lu ne ndax xam nga gileem ni mu toll ak ni mu doyee waar su ko suma borom tàggatutoon dama ne doo ko mën a buusaloo meetar wund wii nga xam ne di muus nga xam ne tàggatuluñ ko bu siisoo nga taxaw ah muus rek bu siisoo nga taxaw kaña rek bu siisoo nga taxaw waaw kaña rek laa bu siisoo nga taxaw seet na nga ngay doxaleeg moom sans comme que ne ki changé de position yéen da ngay changé position wala mu yóbbale sil xafaar de waxantuma la ak leneen kon nag gileem ak yeneen yu ni mel suñ leen mënee kalang kalangee fu ne jàppal na yàllaa ca jàpp laalakum ndax la yéen taskuruuna ngir mën a sant borom bi bu baax a baax loo teg sunu borom nee na tabaski yi ngeen di tabaski yàlla soxlawul ci yàpp wi dara kon lu mu rëy rëy rëy rëy te yéene bu rafet lalu ko ñàkk nga xam nga lan nga ci amaa nit ñi naan diw xaram mi ni mu rëyee xaram mi ni mu baaxee loolu rek de yeew am foo ko mën a denc ci kër gi kenn du ko gis waaye daal foog nga ne da nga génn kër gi di sang-sangul te am nga foo ko mën a sangee ci kër ga loo ciy wan nit ñi xaa defaloo ko yàlla yàlla gis na ko kay yàlla nga koy defal te gis na ko loo ciy wan nit waaye nit ñi di nga gis seen xel di ci nekk te doo leen ca may gars yi daal léeg-léeg boo rombee léeg-léeg nit ñi di xarit tabaski yi fii ah ak xaalis bu bëri bi ñu ciy def bu yàlla taxul de dara jëru ko moom bu yàlla taxul te yàlla ne na man soxla wu ma dara ci yàpp wi yéene bi ñu ko defee rek laay xool lan yanaa du yegg du joti ay jitak la ne lan yata yanaa du yegg allah yàlla du yegg ca moom mooy du yëkkati rek allah yàlla luxuumuhaa mooy yàppi xar yi ak yàppi bëy yi ak yàppi tabaski yi yàlla du ko yëkkati wala dimaauha du yëkkati deret yi itam walaa walakin kay yanaaluhu dana yegg ci yàlla mooy dana joti ci yàlla at taqwa dana yëkkati ku ba àgg ci yàlla at taqwa ragal yàlla min ku bopp tukki na ci yéen seet ba xam lan moo tax ngeen def ko ndax yàllaa tax wala da ngay def ngir aada wala da ngay def ngir ngisal wala wala wala wala wala wala kadalika naka nii mm. ñu ko tàggatee mm. ñoom jur yi mm. sakkarnaaha tàggatal nañ lakum ñeel leen lu tukabbiru pour ngeen tudd al màggal kon allaha yàlla sunu boroom ala ma hadakum ci lim leen gindi orienté leen wala leen teg leen ci yoon ngeen mën a xam naka ngeen di jaamoo yàlla jaamu gu sell wa bashir dégalal al muhsinin ñi nga xam ne ñooy way rafetal ñi suñuy tabaski day rafet yàlla dong suñuy julli day rafet yàlla dong suñuy woor day rafet yàlla dong suñu aj màkka lépp lu ñuy def daal yàlla dong dong dong dong moo cee lalu amuñ ci beneen soxla bu dul yàlla euh, inna allaha naka sama boroom yu daafiu dana jañal dana défendre rek bi maanaam anil lazina ca gaa yi nga xam ne amanu gëm nañu yàlla toujours moo leen di di leen musal ci pexey gaa yi nga xam ne ñoo leen di kàmbal bëgg ñuy dugg ca kàmb ya inna allaha naka sama boroom laa yuhibbu bëggul kulla xawaanin bépp wuru jaakoon kafuurin koo xam ne ku goree di la tabarakallahu sunu boroom bëggul kooku xam nga yonent bi sallallahu alayhi sallam lim nekk màkkatal mukarram yëpp lu koy yéeféer yi wax wasbir ala ma yaqulun rek lañu koy wax mm-hmm. muñal li gaa yi wax mm-hmm. muñal li yi def mm-hmm. muñal muñal waaye ba mu ñëwee ca madinatul munawwara ca ñaareelu at ba ca gàddaay ga wala ca at mu njëkk ma dégg nga maam la ca xew ca la xew la ca xew ca la ca xewee mooy la nga déggoon cheikhul haaji maris radiyallahu anhu doon la ko wax naan wali nabi asinal baari bi nas bi raxan te duq hamatadil inkaari wa shahami loolu la góor gi jàngale woon dem banaan wa awalan ayatul xajji lati nasalat min baadi waadi difhamin ilahimi wa baadu yaa ayuha jaat mukarraratan min alkitaabi alazizi almuxkamir tazimi loolu la waxoon wane nag yàlla jox ne autorisation pour ñu affronter yéeféer yii nga xam ne ñooy fontoo rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te wax naa la xam nga madina la xewee saar bi saaru madina la kon aaya jii moo njëkk a wàcc di joxe ndigal pour jullit ñi résistance résistance la ñuy wax ah mi ngi nii résister nañu résister pourtant dañ leen a yàgg tooñ de lu ñuy band bandee leen ko fu ñu jaar faak ñoom waaye yàlla na ko bul bul fayagum bul defandaragum taxawal rek bañ jox la saak kon loolu yàgg na fi waaye léegi ndax yonent bi moom dafa bëggoon fitna ah senegal daf moo ko fi Sénégal moom kenn xamul nit ñi ni ñuy doxee a ah, léegi soo fa ñu da ngaa bëgg fitna da ngaa bëgg bëgg nag léegi da ngaa bëgg daal ñu jàppale di leen dul wala di jaar yow fudul noonu di la xañ say àq ñu naan doo résister ah ah mi ngi nii de alxuraan moom leeral na lépp soo ko jàngulee nag wala nga jàng koo pare di bàyyi xel sa poos dana tax tabaarakallaahu doo ko wax na nga ko war a waxee ok dégguloo usina joxeef na ndigal li lazina ñeel gaa yi nga xam ne yuqaataluun daañu xeex dégg nga de mooy jullit ñi bi annahum naka ñoom jullit ñooñu lu dox maa la résisté leen mooy zulimu tooñeef na leen yéeféer yi ñoo leen doon bi di leen teg lu kenn mënul ñu dem ba mu yàgg yàlla ne ay ci jàmmaarloo te nag yàlla ba mu leen di wax jàmmaarloo leen ñii di leen di fonto nee na naa leen dimbale ba ngeen yëg ne dimbale naa leen nag denga wax ba wa inna allaha naka sama boroom la xadirun ku am kattan la ku mën la lool ala nasrihim ci jàppale jullit ñi bañ a gañe pouvoir yëpp alladina ñi ñuy xeex ak mm. ñooy ñi nga xam ne mm. wala ñiy xeex mm. ñiy xeex te mooy julli ñi ñi résisté alladina mooy ñi nga xam ne uxruju génneef ne leen min diyaarihim seeni réew seeni dëkk seeni kër nangu seeni droit yëpp bu fekkoon ne dafa tegu ci loi waaye dégg loolu suñu borom wax bi gayri xaqin nag ci lu benn droit nag mën la ëpp doole dictateur doxal bi gayri xaqinaa ah lu ñu wax ñoom bañ teg leen dictateur boobu mu ne a ah, illa an yaqulu lu dul wax goo xam ne dafa mel ni ma madhi bi maa yusbihu zamma nag li borom bayaan yi wax loolu nuru foofu ñoom daal dara <laughs> manaa feddli aw tagg ci lu ñu ak aw ŋàññ ah diw kay tabaarakallaahu baax na de waaye daal moom dalu denc dara kon kay da gën a feddli tagg wi <laughs> gis nga lu dul wax goo xam ne wax nañu ko daal ne rabbuna allah yàlla dong moonu moom mooy sunu borom lii rek la ñuy de ñu leen du ngeen ko fi waxee teg leen injustice boo xam ne tabaarakallahu ëpp na daya sunu borom ne walaw laa dafaullaahi buudu kon jañug yàlla defaandarug yàlla annaasa nit ñi baadahum ñenn ña ñu leen di defaandare bi baadin bu toon ñu baax ñii mu di defaandare ñu bon ñii bu toon ñii dem ci jàkka yi ñii tudd yàlla ñii jàngal Qur'an ñi yiw dama ne la hudimat mabbeef na sawaami'u jaamokaayil labbe yi seen jàkka yi mabbu kon nañ ko wala jaamokaayil labbe waaw wa biyaawun ak ijlis yi mabbu kon nañ ko wa salawaatun ak jaamookaay yahud yi seen jàkka yi mabbu kon nañ ko kon ñenn ñi ñooy taxaw li wala fi naan ñi ci kër gi ñoo fi bàyyi ñi ci naaj wi ñi ci naaj yoo fi bàyyi ñi ci kër gi kenn ku ne da ngaa am mission booy doxal ci mbir ma yëfu yi mën dox mën sotti mën jaar yoon wa masaajidu ak jàkka yi jàkka yi nga xam ne jullit ñee cey nekk yuskaru nga xam ne dees na tudd fiihaa ci barab yooyu di fa màggal yàlla kasiiran lu bëree bëri di ko fa tudd nag suba ak ngoon bu dutoon lii nit ñi def nañ fi lu tax yàlla faagaagal adduna bi kon jàppal na ñiy dem ci yu baax yooyu ak taxawe yu baax yooyu ñoo fi bàyyi ñu bon ñi taxawe leneen de bu doon lii ba léegi yàlla ràppal na yëf yi bu yàgg jeex koon na dégg nga de mhm. loote ayca te nag wala yansuran na gin naa ne dana jàppale allahu yàlla man yansuruhu yàlla nee na ku ma jàppale ci sama diine ji sama yenanti bii ak lii mu fi indi yow moom ku la jàppale ma jàppale la ku la jàppalewul ma jàppale la kon am nga garanti kon sooy jàppale yàlla jàppale ngay dëggu jàppale na yow dal nga ci xam nga bu dëgguwul nag bu dëgguwul nag danga nga a yokki trop alladina mooy gaa yi nga xam ne inna allaha naka sama borom la qawiyun aji am kattan la ci mbindeefam yi waaye azizun aji not la ci nguuram moo ci am sañ-sañ lu ko neex lay def ci mbindeef yi te amul lu tax ak déedéet mhm. amu ci de mhm. li ma kay fa mhm. amu ci allazina gaa yi nga xam ne in makkannaahum ndegam jekkuloo nañ leen fil ardi ci àdduna bi moo yow néewalaloon nañ la doole di la néewal doole ba léegi pouvoir yi yëpp nekk ci sa kaw gannaaw ba pouvoir yi nekkee ci seen kaw nag wa aqaamu salaa ñuy taxawal julli dégg nga de taxawal julli nag ndeysaan Abdullah ibnu Abbasaan wax ne yenent bi nee na bokk na ci màndarga yowmal qiyaama mooy nit ñi di rey julli ak topp seen bànneex waaw rey julli duñ ko defati wala duñ ko defee ne mu neexee wala ñu topp seen bànneex ba julli paase te duñ ko def ak itam bokk na ci màndarga yowmal qiyaama ay chef d'état yoo xam ne buur yoo xam ne woor rek la ñuy yàlla boole nag ay jëwriñ yoo xam ne ay kàccoor la ñuy doon lii la yonent bi wax ba mu waxee loolu Salmaan jug taxaw ne ko giñ naa ko ci sama yaay ak sama baay ndax loolu day nekk yonent bi ne ko waaw waaw kañ la loolu di ne mu ne su nee ba xolub jullit di ruy comme ni ndox di ruyee ndax du am fenn foo xam ne dana am ko ko jàppale li muy jooytu mu ne ko loolu dana ne mu ne ko waaw loolu nekk de suñ demee ba dégg nga maam ñuy toroxal jullit nga xam ne bu amee dëgg sax du ko ñemee feeñal ba bu ko waxee nit ñi lekk ko su noppee diyaaleeg maram in takallama akaluuhu wa in sakata maata bi gaysihi loolu la wax kon nga gis ne taxawal julli ah ci mbir yi la bokk ah mandarga yowmal ma nag boo xoolee léeg-léeg nit ñi ni ñu caaxaane julli sax ñàkk kaa caaxaane nag dangay xool ñi koy def ak ñi ko def soo xoolee rek xool ñi nga xam ne ñoo ñëw ci jàkka ji ak ñi nga xam ne jàkka ñi mën naa noddu du leen tiital du leen xoofal ñi may tëddale ay bori jullit yu bëree bori jullit yu bëree bëri ñooñu ngay xool ñooñu ngay xool du leen tax a tiit du leen tax a def dara ak kaamu sala waatu zaka ñuy joxe asaka seen alal waamaru ñuy santaane bil maarufi ci lu baax wa nahaw ñuy tere anil munkar ci lu ñu sib mooy fu ñu gisee lu baax digle ko ñu xam ne lii mooy dëgg ñu wax ko ak nu leen ci mën a fekk mm-hmm. ñu ko xam ne yàlla lañ doon waxal mm-hmm. waaye itam fu ñu gisee lu bon mm-hmm. wax ko itam ak lu mën di ak lu leen mën a lu leen ci mën a fekk rek ñu nangu ko walillaahi yàlla moom aqibatul umuur mu jëg mbir yëpp di yowmal qiyaama ak la ca tegu yàgg-yàgg mbir mi ci loxol yàlla lay dellu yow yenent bi nag yow laay wax kon nag ah day miisal yenent bi di ko miisloo maa di ko defal daal comme nag lii lii ñu ko weddi nii contraire ko di yàq deram nee na ko bu la naqari ñi la fi jiitoon di ay yënant defoon nañ leen noonu waaye yow nit yàlla bi yow ustaas bi yow sëriñ bi yow mi woote jëme ci yàlla te woote ga dëggu yow it muñal dégg nga wax ba ne wa in yukazzibuka ndegam fen loo nañ la weddi nañ la bu mu la naqari fa xad kazzabat weddi woon na qablahum la leen fi jiitu woon xawmu nuux nit yent yàlla nuux yi weddi woon nañ leen de waadun ak waa kër yent yàlla huud yi weddi woon nañu wa samuud ak waa kër yent yàlla saalix yi weddi woon nañu saalix wa xawmu ibrahim ak nit yent yàlla ibrahim wa xawmu luut ak nit yent yàlla luut yi weddi woon nañu waa saabu madiyan ak waa kër yent yàlla shuaybu weddi woon nañu wa kuziba weddi foon weddee foon na Moussa yénti yàlla Moussa waaye ñoom ñëpp bañ leen weddee fa am laytu yàndaxtal naa maanaam muñandiku naa lil kaafiriina ñeel ñi nga xam ne ñoo weddi woon mooy ma yéex a mbugal ci ñoom yéexe ko ba waxtu wa ma leen war a duma jot su ma aka sum topp gannaaw ko ma jàpp leen ci samay duma kenn rëcc na déedéet fa kay fa kaane naka la nekkee nakiri samay mbugal ca ñoom ba mu agsee ci seen kaw dee ba jeex noonu rek la amul leneen